لاب قصيدة لا قصيدة مويل لو مدروم نياري بيتي جيم كاو وا بيتي في مدح خير البرية تي تاغ من ديف رك الله صلى الله عليه وسلم واو لامام الكامل من جد مدلا ولا عالم العاملي أكبر كم كم بأجي جي خم كم الشيخ موي سليم بشرف الدين ابي عبد الله محمد البوصيري وابو سيري من قمنه سيرين مودن ابو عباس المرسي ابو العباس المرسي moo doon wax ne su ma toogee benn gende ko gis ma yonente yàlla mouhamad salallah alih w sallam rek dootu ma kon teeti sama bopp si juri ñi waa noonu la sëñe meloon bu sëñ mu mi tagg yonente bi salallah alih w sallam tagg na ko ci burda ba tagg woo xam ne ba mu ko taggee yonente bi benn waaye ci soppee mi dafa tëdd gu direct gent yonente bi salallah alih w sallam ñu ngi koy weer burda mu ngi yëngatu mel ni waaw banqaas buy jaayoo <laughs> waaw mu xëy si mu ñëw si boosare ne ko waaw wax ma tagg yu nga tagg yonent bi démb si guddi gént gént naa yonent bi ñi di ku ko jàngal mu yëngatu mel ni banqaas buy jaayoo waaw burdu boobu li ko waraloon mooy boosare dafa paralysé woon docteur yëpp feebar faj faj ba sonn mënul wér waaw mu daal di tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci burdoom boobu tëdd guddi rek gént yonent bi raa yaram wa ba mu xëyee mu wér waaw mel ni dara mosu koo dal moo tax gars yi ne alburu lañ ko waroon tuddee alburu moo di wér waaye xasidaab kambu bi nga xam ne ba mu ko woyee yonantu dafa simi bordaam jox ko boobu la ñu war a tuddee bordo waaw moo way way wii di am di kon kooku kenn la woon ci kàngaam yu mag yi ñi nga xam ne nii seen dund yëpp dañ ko def ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa bu njëkk nag daan na tagg buuri waare ko ba mujj nag di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu seeru ne kayfa tarqaa kawteef naga lay yéegee ruqyaka comme sa yéeg al anbiyaa yonent yaa samaan xéemal asamaan si nga xam ne maa taa maa taawalat haa su tuntuwu dang moom samaawo benn asamaan mu ne kawteef xéeg gi nga xéeg yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maqaama bi kawe bi nga am sa digganteeg sa borom naka la ko yonent yi di xamee maanaam mënuñ ko am ba mukk yow yaay asamaan si nga xam ne benn asamaan du sutante ak yow maanaam yaay ki kawe ki nga xam ne lu waay kawe kawe du la jéem a jot balay jéem a sut rek laa wax de sallallahu alayhi wa sallam bu seeru seereel na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ne moo gën a kawe ci mbindeef yàlla yi xéeg na ci diggante ak boromam xéeg goo xam ne yonent yi gën a ci mbindéef yi xalaatuñ ko yëg ndax xam nañ ne lott nañ ca bu doon ñu kawee asamaan lañ nga ne yonentu asamaan ci gën a kawe ci nga xam ne benn asamaan du ko jéema waaw jot rek laa wax de sallallahu alayhi wa sallam la muy saawoo ko xemoo ñog laa ka sa kawe gi waqat xaala diggal na sanan leer min ka ba tukkee ci yow dunahum waris leen ñoom yonent wasanaaw ak ak yëkkatiku yonent yi kawe nañ gaa waaye lu ñuy kawe kawe xamu ñoog yow nag yaa leen gën a kawe sallallahu alayhi wa sallam sa digganteeg yonent yi ay maqaama yëkkatiku ak i leer yoo xam ne benn buñ ci jege woon mu lakk leen ni safara di lakkee karaw waaw dox na ci rek laa wax sallallahu alayhi wa sallam nag ci yow la jugee loolu moo di moo ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek la yàlla may yàlla ji ca nam melee waaw ci benn kiiraay waaye ku dul yonent bi waaw yonentu dox na sa digganteeg borom bi subhanahu wa taala kon yonent yëpp leer gi jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dox dégg seen digganteeg waaw ñu ma seede borom bi rek laa wax de loolu la bu seeru di wax nag ne ko yonent yi kawe nañ moo ñëw yow leer ak ak yëkkatiku gu jugee ci yow dox na sa diggante ak yonent yooyu nga ne ko ñen ñoo yonent yi ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne innama masalu naka misaal say melo li naasi ñeel nit kama masala kama nu misaalee almaaw ndox an nujuum biddiw yi ni nga boo xoolee ci ndox da ngay gis biddiw yi ci asamaan ndox ma melaw biddiw yi ñoo ci feeñ rek de waaye biddiw yaa ngi ci asamaan yeneen yonent yi it melaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo feeñ ci ñoom waaye melaw dëgg mu ngi ci waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam càqatu Muhammad ya kon yonent bi mooy borom melaw yu rafet yi mooy borom tagg yu rafet yi mooy borom jikko yu kawe yi yeneen yonent yi seen yi may lu muy bari dafa mel ni rek ñoom dañoo mel ni rek am ndox woo xam ne nii waa dafay feeñal waaw biddiwee ci samaan seen jukko yi ak seen may yi noonu la mel kon bu doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ak jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloog moom duñu xam benn may rek laa ci yàlla lu ñuy foor foor seen may yëpp mu ngi ci may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tagg ko nag tagg wi gën a rafet yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam misbaaxu kulli fadlin yaay lampi bépp ngëneel fa maa tas duru du jóge ay addi waawu leer yi illaan daw yi kanu mooy sa leer sallallahu alayhi lu mën a am rek mbaax goo mën a gis dégg nga waaw ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la jugee moo tax mbaax ak ngëneel bu doon lamp nga ne mooy jëmm làmp ba képp ko xamante ci leer ga rek ci yonent boobu nga jëlee leer jikko yu kawe yu yàlla gërëm yonentu bi mooy jëmm ja waaw may gu foor gu yàlla gërëm yonentu bi mooy jëmm ja waaw mbaax goo mën a gis rek yonentu mooy jëmmi mbaax googu képp ko amate ci mbaax googu ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee lakka ñeel na yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> zaatu ulumi jëmmi xam-xam ya mooy min alamil xaybi waaw ca waaw alam ba moom faddu la mooy ci xaalam bu nëbbu ba wa min ha tukkee na ca dégg nga jëmm jooju alasmaaw turi li aadama ñeel aadama nag laa wax de aadama mi nga xam ne mooy xalifa bi yàlla ci kaw suuf mënul seere jëmm yàlla ja tur yaag melo ya rek ci la mën a tasaruf ci la mën a soppandiku ci la mën a seede waaye jëmm jëmmum kiiraay la waa walis ko mën koo gis يو يونس تبي صلى الله عليه وسلم يرجع على ماي نما نسير جمي برام بي ذات علومي مه ذات عالية المطلقة جمي على جو كم جاي يونس ترك كم نسير آدم علومي فور فور ملا يكتوري رجلا ما نسير رجلا آدم جمونك مولام بو ملا يب أكتوري يب واو واي مولن جنا فور آدم عليه السلام لمي فور فور توري عليه ak mela ya la mën a janoog waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moom mooy janoog jëmmu jël laa xam ne loolu moom rek moo ko am ci mbindeef yi loolu waral yonent yàlla Moussa ba mu ñaane yàlla ko yàlla may ma ma gis la yàlla def na ko lan taraani ma gis ban gis koy dàqal ndax melo yeeg tur la wala jëmmu ja jëmmu ja la koy dàqal ndax yonent yàlla Moussa dafa ñaan yàlla gis yàlla ci gis gi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis yàlla ne ko loolu mënu nekk loolu xal lu jirim la yonentoo ko jagoo ولا تقربوا مال اليتيم كنا بودن جيما جيغا لو جيريم لك نيال نال يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ذات العلوم جيم قمقمي من عالم الغيب تعلم بام فضلا ومنها تكينتي جم جو يلا اسماء توري يا ادم يا ادم ادم تي توري رك لهم واي يا نغا بتي جم جو لا ده دنگا lam tasal dañoo fi damaayiril kawni ci biir yi nekk gi tuxtaaru ñuy tànn la ka ñeel al umaatu yaayi wala baaw ak bàyyi yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bala yàlla bindee dafa jël sa leer di ko dugal ci ndigg góor yi nga xam ne ñu sell lañ duñ moo yàlla ba mukk muy jugee ci ñoom di dem ci biir jigéen ñi nga xam ne ñu sell lañ duñ mosa moo yàlla loolu waral mu ne lam yazal laahu yunqil yunqiluni min al aslaabi attahira ila al arhami zakiya yonentu ne yàlla mosub dañ di ma toxalee jëlee ma ci ndigg yu laab di ma dugal ci biir waaw jigéen yu sell yi ba ma muy judd màkk laa <coughs> daan na waxit ne بوين سو من خير يقولون بني آدم قرنا فقرنا لم يفترق شعباني إلا كنت في خيرهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم من يا الله يوني نما كي ماسي جن كي ماسي دوم آدم أي ماسي كو ماس ماس بني ورا لير يوني صلى الله عليه وسلم مي فنتي يوني تبوه يا الله يوني يوني تبوه كن دك دك يوني تبوه مي يوني الله محمد صلى الله عليه وسلم ñaari maas duñ takaliko lu mooy maas gëj gën rek fa laay feeñ maa madat wayut fataratun benn diir mina rusuli ci yonent yi illaa basara lu may bëgg leen ak xawma ak nitam bi ko ci yow an ba al anbiyaa yonent yi benn yonent du ñëw ba dem lu muy bëgg leen nitam ya ne leen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana ñëw ci alsina feeñ yonent yàlla Suleymaan ci tukkeem yi mos na di dox borom bu Medina jamono boobu Medina àllab kerte nag la amul dara kenn dëkk guur rek laa wax de bi nga xam ne moo ñëw mu jóg jamono bu ñëwee fii lay gàddaay ci ñu ne ko suñu digganteeg moom ñaataata ci dox mu ne junneyaat chan yaaw kenn doon ci yonentu banu Israayil yi mos naa jàkkaarloo waa banu Israayil ne ki nga xam ne bu feeñee da koy tuddee daal daalun mooy kuréel kooku mooy saaxibu nubuwa tuddee mooy borom nubuwa nar rek moo tax ngeen di ko tuddee aji réer maanaam yonent bi mooy borom nubuwa waxu sax moom yonent la mooy borom nubuwatu kooku xam na maqaamam waaye bu ñëwee dangeen naan dafa réer ndax mën a nar yonent yëpp dañ naan bégalee seen nit yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yahud yi jàng nañ ko ci seen i téere xam ko xam goo xam ne moom lañ gën a xam sax doom rek laa wax de yonentu mos naa dajeeg benn fóore ci yahud yi kenn la woon ci ñu ëppoon ci ñoom ci bitti midina mu ne ko diw yonentu bi ngeen jàng ci tawraat ne nii la mel naa la mel da ngaa wax ne man du ma boobu mu gersu ndeyjoor gisul kenn gersu càmmooy gisul kenn mu ne ko wallaay mboolem borom xam-xam yi yahudi xam nañ ne yow la waaye kañaan rek moo leen jàpp rek laa wax de <coughs> te te baa dana pugure wu bi ci yow alon suuru jamono yi wa tasmu dana yëkkatiku bi ci yow aliyaaw aji kawe baax daa nekk na ci gannaawam aliyaaw aji kawe bu seeru na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono yëpp ñu ngi ndamu di bàkku ci jege la jamono ju la gën a jege rek ma ngay bàkku ne maa gën a jege jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yow yaa tax jamono yi di ndamu di bakku waaye képp ku kawe ci yow la kawe yonent yi ci yow lañ kawe seen gannaaw wala yi daal di ñëw kawe ci yow rek laa wax de ba muy wootas moo dana yëkkati ko bi ko ci yow aliyaa kawe te mooy yonent yi baada nekk na seen gannaaw aliyaa waa ji kawe mooy wala de nu bu watu mboolem ku ci yàlla tànn boole la ca yow yaa mu mu mu bokk ca rek laa wax de yaa tax Muhammad kawe waaye wali yi bu yàlla tànn boole la ci wilaayatu yow yaa tax rek laa wax sallallahu alayhi wa sallam booba daa feeñ lay lu wujuli ñeen xam gi karimun aji tedd min ko tukkee ci yow fekk ki ki feeñ noonu jugee ci yonent bi du du kenn lu ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu waral loolu ndax xaqiqatu muhammadiya ci la muhammad ibn abdullahi feeñ muhammadun mi nga xam ne rasulun min allahi kooku bokkut ak ki nga xam ne rasulun min anfusikum yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag xaqiqatoom kooku rasulun min allahi la ci rasul boobu nag ci la rasulun min anfusikum jógee moo tax mu ne wobba daa feeñ na karimul aji tedd te mooy sa jëmm ji nga xam ne moo jógee ci abdullahi ak aminatu lil wujudi ñeel xam gii min ko jugee ci yow mooy sàqatu Muhammad rek laa rek ku tedd kooku fu mu jugee mu ne min karimin mu ngi jugee ci aji tedd sa baay mooy Abdoulaye ku tedd la abaaw ay baayam ñoom ñëpp kuromaaw ñu tedd lañ mboolem ñi nga xam ne ñoo jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu yàlla tànn lañ ñu tedd rek lañ rek laa wax de mu ne nasabun askan la woo xam ne taxsibu dana teddee alawliya alawlaa way kawe ya bi xulaaw ci melam ya xaladat ha rangal na ko nujum waa biduwum aljawza u bidu jawza askan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la commencé di tagg mu ne askan la woo xam ne melo yi ca feeñ mboolem ku kawe te rek ci moom nga teddee képp ku amati kawe dangaa jël rek waaw ci melo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon askan yonent bi mboolem way kawe yi rek ci melom lañ teddee askan wu rafet rafet ba mu mel ni biddiwu jawzaaw rek moo fa wàcci ñoom ñëpp ay bidiw lañ jawzaa ay biddiw la yoo xam ne dafay dajaloo boo ko séenee mu dajaloo rafet lool maam yi yonent bi noonu lañ mel kenn ko ci laal rek gis ko muy ku rafet lool ku yàlla fonk waaw daal di leer lool rek laa wax mel ni biddiwu jawzaa rek ñoo dajaloo laa wax de mu tee nag dox yi nga xam ne ñu ngay xas ki jur yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam habaza ak a baax suudadin caq baa moom ak sangala la wa faxaarin ak ak ndam ante yow yonent bi fii caq boobu alyatimatu yaa di jirim ba maanaam yaa wurusab jirim mooy wurusu wéet wa alasmaahu ba da bañ wattu mu ne xaskanu yonentu boobu nga xam ne boo ko doon niru leeg caq dang naan per boo laal rek sang per boo laal rek ndam la maanaam maam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam joo rek sang la maam joo jël rek ñu man koo ndamoo man koo bàkkoo rek laa ndax yàlla musu dañ di ko tànn lay maam doy na rek ndax firim ñaareel mi ci am jébi firiwuñ ko waa lu mooy rek pour jege la la baat yi waaye ñëwuñ pour andi la ba mu gën a xóot lañ la bëgg wax daal mooy doy na rek pour nga gëm ne maam ju jur yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku baax la moo ne yonent bi yàlla daf ko laabal ba nanguwut waaw njaalo kot jur moom du ci kuy njaalo du juddoo ci njaalo waaw léegi nag doomi njaalo kéeféer ku ci gën a bon ki nga xam ne dafay njaalo jur la ak ki nga xam ne ni kéeféer jur la ku ci gën a bon hevel jur la moo bon fuuf njaalakot jur la ndax njaalakot mën na nek jurit mën na tuub yalla baal ko mën na dugg aljana gis ngeen rek ci histoire banu israila yalla jéggal na ab ciaga lu tax yalla jéggal ciaga ba ndax naan dal xaj bo xam ni rek la wa dafa maron waye ndax mos ngeen a gis yalla jéggal hevel na jëf ju baax kon nak bu fekke yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko musal wottu ko bo wottu ko ci njaalokat ne du ko jur kon xam ngeen hevel du ko jur ndax xéeféer mooy sobe si gën a bon rek laa wax de ne man mushrikuuna najisun loolu waxi noppi la borom xel bu ne war koo xamal sa bopp waaye mën naa laa wëttu si sobe si tuuti si du la takk mais sobe si gën a bon nag dana la takk dëgg-dëgg loolu wutaamu fa rek laa wax de bu ma diw sàngam tuur ndox sax du ko takk loolu waxi noppi la ne kabine du ko takk waaye musal naa ko si tuur ndox waaye kabine moom dana ko takk xam nga loolu benn musal nekkul fa rek laa wax de kon yonent bi boo ko yàlla musalee ba kuy njaalo du ko jur mooy ne kon ku nekk ba xëy du ko jur sallallahu alayhi wa sallam moo tax ay maamam ñoom ñëpp ay sang lañ ñoom ñëpp ñu mën a ndamoo lañ waaye askan woowu wurus wa ca gën a rafet li nga xam ne nii moom la mooy wurus muñ wëttu wa wurus wa amul morom wa moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam caq daan na per bu ca gën a rafet. nga xool boo gisee ma ngay mel xati waaw moo rafetal caq ba bu manqué woon ci caq ba rek caq ba ñaaw askanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yonent bi mooy per wu rafet woowu sallallahu alayhi wa sallam wa ak baax mu xayan kanam goo xam ne mu diwun aji leeral la min ko jógee ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ka shamsi mel ni jant asfaral feeñ naanu ci moom laylatun guddi xarraaw bi aji leer daa ji weex tàll mu ne ndaw kanam gu baax mooy kanam ak yonent bi sallallahu bi nga xam ne dafay leeral ba mel ni jant jant boo xam ne bu feeñee rek waaw daal di leeral guddi gu lëndëm googu maanaam ma ngay tagg nag keroog ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne leer dafa génn leeral xadis ne yëpp rek laa wax de bu ko xamale sax makka ak la ko wër mboolem àdduna dafa leeroon ke rek bis boobu waaw leer nañ ñi ndax mu yonentu bu leer boobu kanam googu lay tagg ne kanam ga ko baax kanam goo xam dafay leeral ba mel ni jant asfarat leer na xanu ci kanam googu laylatun bi aji weex guddi gu weex tàll googu mooy guddi gu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam juddoo li ko tax a weex li ko tax a leer mooy kanam ak yonentu googu ku ne yemal kanam googu benn bis ndey Aysatu mos naa réer le puso ci néegam mu dëndam lool mu seet ko ba sonn mënu koo gis yonentu ne tëll ca néeg ba rek kanam nga daal di leer ba leeral néeg ba ndey Aysatu daal di gis puso ba xool ko ba neex mu ne ko wa ajmalu minka لم تلد النساء ولا بوغو أجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء كرفتين يو منكو كرفتين يو بد مسكو جس كرفتين يو كرفتين يو بد مسكو جس waaye ku mateen yow jigéen mosu koo jur rek laa wax de mu ne jigéenu Zuleyxa yi gisoon Yuusufa di dagg seen loxo yi yow bu ñu la gisoon yow seen xol yi lañuy dog sallallahu alayhi wa sallam kanam googu lay tagg mu ne woo ak a baax mu yan kanam goo xam ne mu diwnu aji leeral la min ko jugee ci yonent bi ka samsi ba mel ni jant asfara leeree naa anu ci kanam googu laylatun guddi xaraaw bi aji leer mooy keroog ba mu juddoo guddi yëpp leer mu ne laylatul mawlidi guddi juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allazi mooy guddi gi nga xam ne kaana nekk na li diine ñeel diine sururun mbégte bi ca bisam ba was di aaw na ko kontante guddi gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi googu diine dafa bëgg daal di kontaan lool ndax am na ndimbal nag gannaaw bu ko ñàkkee sallallahu alayhi wa sallam mu toppalantoo bushral hawaatifi mbégtey xaacu ya xaatif mooy kàddu koy dégg te gisoo jëmm ja an ne li mbir te mbir xat wuli da jur Mustafa yonentu buñ tànn bi waa ka war na dagal xanaa ndokk yéen ñëpp war ngeen a ndokkeel seen bopp ndax yonent bi judd na keroog ba yonent bi juddoo waaw jinne yi xaacu nañ di wane ne yonent bi sallallahu alayhi na gaa yi dégg xaacu fu nekk di bëgg ne kontaan yenoon yonent bi nga xam ne moo ñëw mu yëg jamono judd na waaw te kenn gisul jëmm yee rek laa wax de wata daa jeng na iwaanu Kisra tabaxu Kisra ba walaw la aayatun bu du woon kawteef min ka bu tukkee ci yonent bi maa tadaa du jëngal binaaw tabax ba keroog ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo Kisra amoon na pale boo xam ne mu ci doyeb dëgër ndax Kisra buur la buur Iraq képp ku moom Faris ci Iraq rek Kisra lañ lay santale amoon doole bokkoon ci ñu ëppoon kattan ci àddina bi ci jamono yooyu tabaxoon pare bu rëy boo xam ne ay jabaram ak i surgaam ak i alalam yépp fa la nekk wax nañ ne moom rek amoon na fukki junne jabar ak ñaar ñoom ñëpp ñu ci pale boobu kon xam nga ne pale bi rëy na pale bu fukki junne jabar ak ñaar nekk ak liggéeykatam ak i alalam kooku war naa dëgër waaye keroog ba yonent bi sallallahu alayhi tabax ba dafa jeng toj fukki toj ak ñeent muy ñu ne fukki buur ak ñeent moo leen dese bu jeexee rek seen nguur jeex mu ne bu doon a kaawteef bu jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabax boobu du jeng ndax dëgëraayam waxadaa xëy na kullu bayti naarin bépp kër ak safara wa fii nekk na ca kurbatun jàqare wa balaawoon ak ak nattu min xumuudiha ngi rek fayam faris xamoon nañ safara suñ doon jaamoo xam ay xamukat yu bëree bëri yu koy xambu waaye keroog ba yonent bi juddoo safara si def na kamat fay te xambukat yi sàgganuñ kat ñi ngay xambu ku nekk ngi def li la war waaye safara si fay na loolu di wane ne këram yi ngeen di jaamu ak nguur yi ngeen topp léegi ñu daanu nguuroog lislaam rek daal li samp rek moo tax gannaaw ko nguur gudul nguuroog lislaam daanu na loolu la doon junju moo tax réew yi gën a mag ci jamono jooju falakaaw te yi feeñ seen safara yi doon jaamu fay wax yu nun ak yi sewnde sewnde mooy barabi ndox ci suuf lil furs ñeel furus xaarat niis na mu ne nag bu seeru ne faal kaana ndax nekk na li niiraani ñeel seen safara ya il faawun ak ak fay bihaa ci sewnde ya rek laa wax de mu ne keroog ba yonent bi juddoo ndox yañ loon naan daal di dafa dafa ngiis jeex takk gisatuñ ko safara ya fay waaw bu sëy ne waaw mbaaru ndox mi moo dem ci safar sa fay ko nu affaire yi demee nag de ndeysaan loolu yëpp di wane ne seen nguur léegi mu jeex keroog ba yonent bi juddoo yëpp xew na mawlidun juddu la goo xam ne kaana nekk na fi taaliyel kufri ci biddiw ak xéeféer wa baalun di musiba alayhim seen kaw wa baawun ak ak mbas juddug yonent bi de musiba la ci kéeféer yi ndax dana leen faagaagal dana leen xalak waaye nag ndam la ak ak ci jullit jullit ñi rek laa wax de <clears throat> dégg mu ne faani an maa ngi ndokkeel ak ndokkeel bii ci juddu googu li amina te ñeel amina alfadlu mooy ngëneel alladi nga xam ne surifat nañ ci moom ngi ndokkeel nga maa ngi ndokkeel jur gim jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent boobu moo tax xawaa am teraanga xawaa buy màgg di ndamu ci jigéen ñi rek day wax ne ma jur waa yonent bi nga xam ni moo ñëw mu jeg jamono gën ci li yàlla bind waaye Aminatu taxaw ne ko maako ko jural nag man ci man la génnee kon maa la gën moo tax mu ne maa ngi ndokkeel Amina mi nga xam ne moo jur yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonentu boobu nekk gim nekk sëtti sëtti xawaa yi rek moo tax xawaa tedd waaye nag Adama moom moo gën a Abdoulaye dire Abdoulaye moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xawaa lenn la ci Adama waaye Adama moom mboolem jikkoy mbindee fii ak seeni melaw yàlla daf koo dajale ci moom moo tax moom moo gën a mat ku moom dégg nga ndam li nga xam ne nii ak melo yi nga xam ne mu ngi ci doomam yëpp. daje na ci moom rek laa wax de loola waral kenn du màgg rek lu may lenn rek nga am ci waaw Adama kon ko kenn mënatu koo gën rek laa wax de ba mu des yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy baayam ci wàllu mu ne man xawa ana ku ñeel xawa annaa ne moom xamalat amu na ahmad ahmad annaa wala ne moom nu fa aji wasin la bii ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne xawaa fu mu jëlee ëmb yonent bi xawaa fu muy jëlee jur yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon aminatoo ko gën yow ma keroog judd googu naarat am na bi ci jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnatu wax bin aminatu doomu wax bin min fa xaarin ci ndam maa la nga xamee lam tanal mu mosu ko am annisaaw jigéen ña keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam aminatu xam na ndam loo xam ne jigéen mësul koo am ndax bu jigéen ñi bàkkoo ñi ne maajur kan fóode ñi ne maajur borom xam-xam sàngam ñi ne maajur wali sàngam ñi ne maajur yonent yonentub sàngam xawa aminatu bu ñëwee <clears throat> jur doom ju baax yàlla ko yàlla may bépp jigéen waaw ju julli rek laa wax de waa ta dikkal na xawma nitam ya bi afdara ci mimma xamalat ci ne ëmb na ko xablu bu njëkkoon mariama mariama lansra gaa ji gaa ji xiig ki nga xam ne xiig la mooy jànq bu mësul ànd ak góor aminatu keroog ba mu jëree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andil na nitam ña doom joo xam ne moo gën yonent yàlla Iisaa mi nga xam ne ni mariama moo ko jur mariama mi nga xam ne ni mësul ànd ak góor rek laa wax de doom jël mi foor foor مري يونس يالا انسار كوكو يونس يالا محمد صلى الله عليه وسلم وا موكو گن فوف رك لا وخ دي هذا ان أَيُّهُ يرجو الاسلام استطعت ما توفيقي الا بالله اي توكلت عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته